salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ bi Mbacke ñi ngi lay nuyu man la Chérif Dia bu télévision Futur Média laaj bi ni laaj nag euh, ci dëkk bi comme ñi ngi waajal màggal gi bokk na ci comme ñi ngi ci nawet bi jeexagut te mbiram assainissement nekk loo xamante ni lu soxal waa dëkk bi ndax gis nañ fi yenn saa yi euh, mbënn mi ni mu sonalee waa dëkk bi te am na ay projet yoo xamante ne nguur ak Sénégal am na ko fi ñu bëggoon a xam fan la toll ak lan moo ci seen soxla yéen waa dëkk waa ba nga xamante ni buñ ko saafara jafe-jafe dootul am ci wàllu mbënd mi bi ci des euh, wàllu kaaraange lay doon comme dëkk bu mag la bu mooy Ndakaaru mooy ñaareelu ville bu Sénégal war naa soxla mbir ci wàllu kaaraange te yenn saa yi ñu dégg fii ay jafe-jafe ci wàllu insécurité ñu bëggoon a xamit euh, kilifa yi ban gis-gis la ci am ak yan jéego lañ ci def ngir loola mën a dakk ba mu Tuuba mën a wuyoo euh, turam déggaat nañ fi également mbiram garab yi euh, am na si ab procès bu fi amoon ba ab avocat ju bërki dem mu ne Touba am na ay trafic yu ñu fiy dégg loo xamante ne euh, mënta neex kenn ñu a xam également loolu lan moo ciy gis-gisu kilifa yi rawatina médicament yi ñu fiy dégg ñu ne dañ koy jaay te du jaar ci yoon loolu lan moo ci euh, jafe-jafe mbir yi loolu moo nekkoon sama laaj. Touba nag ku ci wax faaw nga dellu ci cosaanu Touba. Serigne Touba moo biddal boppam ba tax mu sanc dëkk bi dafa wax ne li tax ma sanc Touba mooy li taallumi wa taalim jàng ak yare waxoon na itam ne di tax ma sanc dëkk bi yaar tax mooy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi ndax Touba day lu suñu borom dogal ci lu yàgg mboolem nit yàlla yi di ko xëccoo suñu boroom jagleel ko mu ñëw fi itam fekku fi dara ab ay rabi àll fekk ak i garab sëriñ Touba ànd ak taalibe si taalibe bi jox leen ndigal ñu gor dëkk bi boo fekkee ne Serigne bi doon réer di bàyyi ko Darou Salaam di wër dëkk bi ba gis ko fii ñu tudde kër Touba bi tey ñu fekk ko fi Serigne Touba. غرغو سانجيكو تاليف قصيدة مدلب الفوزين موي لو دوخ ديغي ما من مو نيان في مبولم لو خامني بڬ نا ديك بن موسدو يتم مبولم لو خامني باج نا ديك ميمي لول كون توبا ناني خامني سوس موي ديك لا بو خامني سوني بروم داكو mbooleem lu mu ko fi ñaan itam suñ boroom may na ko boo gisee dëkk bi ak si tey loo xam ne téeméer at ak néew la lu ma ñaari million gi dëkk fa loolu xar baax féetewu ko dëkk bu toll ne Touba itam am na kilifa bu ko daax booba Serigne Saliou mu fi ne li gën a de dëkk bu toll ne nga wax ne ana ko ko sanc ñu ne doom nii doom a ngi nii ci biir kër gi loolu xar baax bi kon Serigne Touba loolu la ko suñu borom njëkk a defal mboolem loo fi gis itam nag moo ko ñaan suñu borom suñu borom ko njàmbaaru taalibe yi nag dëggu ci te feeñ ndax sëriñ bi dafa waxoon ne wajbu lahal xayra min al jihaati as sitti wa fiha anil afaati mboolem suñu borom nag ma may fu xéewal mën a bàyyikoo ci àdduna rek dama fekk ci sama dëkk bi Touba boo gisee lu fi nit jaay mu yomb ku fi dëkk sa teraanga yomb loolu pàgguteefu Serigne Touba Serigne Touba nag dafa am lu mu di lu mu digle woon ndax dafa fonkoon Touba Serigne Son bu daan nett li di wax ne bu ma sànn gis ku bàyyi ko Touba balaa wax kenn day wax yow bu noppi am na ku sa wax ne ko yow mu jógee ci sama dëkk bu tedd ma nu mu def mbaa ndox mu ñàkk maa ngay wàññi ko mu ne ko ah Mbàkke de loolu moom ndox ndox ma de ñàkk lool ba tey mu ne ko lool de wax na ngir bu gàtt dana jeex ndox ma dana ko sotti ko mu ne ko ah xanaa loolu mbàkk ku gudd fan loolu du ko fekk Sëriñ Tuubaa nag ku gàtt fan du fekkee dara ñu teg ci fan yu néew mu faatu kon pàgguteefu Sëriñ Tuubaa la bi Sëriñ Tuubaa di digle jumaay jumaay jumaay Tuubaa ji ba wax ne kenn ku ci ne joxe ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett dafa am ndénkaane bu mu ci waxoon boo xam dafa ma de fàttali ndax loolu bokk na ci li tax Touba ak si fii tey 1926 ndax booba xam ngeen ne tubaab yi ngir bëggoon a gàllankoor liggéey bi dafa tax ñu tegoon sëriñ bi ay conditions yu métti ne ko bala ñoo may autorisation ngir nga maa a tabax sa jumaa ji ji Touba faw nga dajale lim bu bëree bëri ci xaalis ngir entreprise bi ko war a tabax faw mu am garantie bu wóor buy tax mu mën xam ne dana ko mën a liggéey. sëriñ bi woo bi yëpp ne kenn ku ci ne na nga joxe ñaar fukki dërëm ak juróom ñett loolu bokk na ci li sos bi ba ba mu dajee nag sëriñ bi dafa dénkaane ak dénkaane boo xam ne dañ ko war de fàttali ko dafa wax ne sëriñ Malick Ndiaye mi nga xam ne moom la daal yéeneloo dafa wax ne maa ngi leen di digal ndigal loo xam ne fu waay jëm nag fa nag fa mooy maa ngi leen di digal ci lépp lu ngeen soxlaate wala lu ngeen bëggati rawat na lu mel ne néegu yàlla bii na ngeen ci góorgóorlu seen kem kàttan ba fa seen doole yam lu ngeen ci mënut ngeen dem laxasaayu wuti ko wuti ko ba am ko ci anam gu sell fu ngeen ci jëm ba tëli ngeen toog xaar fa say jaalullahu alamu seen bu te rikki nag maa ngi leen di wartandikuloo lépp ndimbal loo xam ne bu leen fajalee seeni aajo it daañu leen xañ seen ngor tiirmal seen diine daañu ndax yaari gi yoo xam ne képp ku ne ceew ku ne war ngaa fexe ba sàmm ko ba du jóge ceew képp koo xam ne amoo ko it war ngaa fexe buuti ko loola nag la jiitu ca la koy xañe mooy ñàkk mooy fexe ba moom sa bopp ñàkk sa bopp ñaar bokk na ci li ci mëna a nit man man man sa bop mom sa bop ak ñek sa bop ndax ñaar bo momé sa do no nga lenn mom la dudul yalla wala ngoy ngay nangu keneen ko la mom nee bo boo mënalee sa bop itam bo ñegee sa bop itam no nga kenn ko la yapp wala nga jël sa yité di ko wër nit ñi boo mënalee sa bop itam do jël say soxla di ko wër doomu aadama nee na kon nag maa ngeen leen ci biir ndénkaan bi yéen ñëpp ngeen góor góorgóorlu ci jàmm yàlla te nangoo liggéey ba lépp loo xam ne soxlaati ngeen te mënu mënu leen ko ñàkk ngeen feex ba wutal ko seen bopp loolu ndénkaane boobu ci la Cheikh Mouhamadou Moustapha sukkandiku ba raay bi bi kuñ ko ko tegee ci condition mu ànd ko taalibe Sëñ Tuubaa xam ngeen la ca rakkam yëpp doonoon tàmbalee Cheikh Mouhamadou Farid Cheikh Mouhamadou Bachir Cheikh Mouhamadou Amine Cheikh Mouhamadou Bachir ñu ko doon taxaw ànd ko nak ak Baye Fall xam ngeen la ci def am walu Cheikh seigne touba yi nak ken génnu ci kon boba ña ci doon liggey ci xayma am na ñu waxe tolo na ci ñet junni nit mu wañi lu bari ci main d'œuvre bi ñu waron fay ñambar boge mouride yi wari won nak ba fi mu ne mo andi touba fi kon mboolem lu fi di. xat-xat lu fi di gàllankoor gëm nañ ne lépp suñu borom dana ko saafara ndax dafa tàbbi ci biir ñaan ku nangu sëriñ bi nag li ko ci war waxtu nekk ma ngi ca lépp loo xam ne war na ko wax dana ko wax lépp loo xam ne xam na ne lu ajoo ci dëkk bi day ma nga ca ngeen xam ne ne sëriñ Touba dafa wax ne Touba ku fi sam xel indiwu saw xel dana la fi indi kon ñi fi ñëw ñëpp yaakaar leen fi indi بسيان لكم كفيني وكنه لين في يكار سين بن دالي تديم ما تفهم بدك بتشك أمو تصرف بفهم أمو تيجي ليكون يوم ما يني فيني ونيب بسيان يكار تا مبالغ كفوا ما سنة كرسين دوا تامبر جي الشيخ محمود مصطفى الشيخ محمود الفادل الشيخ عبد الأحد الشيخ عبد الخالد الشيخ سعيد همبكي الشيخ محمود لبنبار بتشي الشيخ سيد مصطفى بتشي الشيخ محمود منتخب كان كل سنة سيد جب lu soxla sa soxla bopp waaye soxla yi nit ñi la ci biir loolu itam moo tax lépp loo xam ne war na ko caa wax yoonu murit dafa am lu mu baaxoo te loolu fa suñ yéen mu soppi mooy baaxoo di jàmbat ci rajo ndax koo xam ne boo waxee ñu dégg la ka nga war a waxal la nga ko war a wax ci dëgg danga ko wax bu fekkente ne difu ko nag boobaa la nga war a jël ci sa responsabilité nga def ko waaye nag sëriñ bi. mi ngi ci ay yéene te gëm nañ ne itam incha allah balaa yàgg lépp suñu doom dana ko ci dimbale na nag ñi ne ci quartier yu sori am na ci ñoom yërmande lool ba tax na xam na ne biir dëkk bi sax liñ si war def bari na waaye nag ñi ne ci biti bari na ba daanaka ñi ngi bëgg ëpp ñi ne ci biir dëkk bi moo tax nag yitte ji li ci ëpp rawat na lu jëm ci courant ak ndox ak yoon la ci ëpp lu ci ñëwate بولن تيمير يفخ بجيوم بين فكير جيوم يعرفون جيم تكرت يسوي ده ده نجنا خطير دكتي ده نجنا واجسام تون لو لا بكون شيء لين يخمن سيرين بخلان نقطة شيء تعمل شيء ييني بق في يخمن لك كل فكين دك جوت شيء يخمن واي مم قامي خلان لك ده سيرين تون كونه مشون بمدرسلون كونه لقيه بمدرسلون واي مم سيرين بيشبك أنا خلاتي بفهم ak yéene boppam ci biir loolu itam ñu xam ne Touba dëkk la boo xam ne ni ma ko waxee rek amul fenn ndax dëkk bu toll ne Touba man ñaari million nit c'est-à-dire titre bu kenn nit moom loolu amul fenn jàpp maire bi itam nga xam ne moo fi nekk sëriñ bi di ko tànnal boppam muy loo xam ne nit ñi def wate bi ñu koy wate sax dafa neex sëriñ bi mu du ko def rek waaye daanaka ay soxlu ndax woote boo xam ne benn liste lay doon loolu daanaka du woote ndax waaye démocratie dafa am génn kilifa gu mag ci àdduna koo xam ne sax du du du du ab jullit waaye dafa wax ne waatu wa démocratie mooy nit ñi lañ bëgg ñu àttale ci moo ne nag bu fekkente ne nag tubaab yi ñoom ni ñu dégg démocratie bokkut ak di démocratie ndax démocratie mooy la nit ñi bëgg bu fekkente ne nag ñoom dañoo jàpp ne ku ne joxe sa xalaat mooy démocratie sa waa Tuubaa jël seen kàddu yëpp jël ko dóor ko ci biir kàddu sëñ bi loolu démocratie féetewu ko kon loolu itam lañ xam ci biir démocratie la kon nañ leen ci fekk si seen bëgg-bëgg fekk si ci leen seen gëm ndax léeg-léeg nga dégg ku sax ndigal amut waaye loolu ko koy wax da bokk ci yoonu murit ku xam yoonu xam ne ndigal moo ko fondé boo ci génnee ndigal dara desatu ci yoonu murit mooy jëfe ak bàyyi tere kon loolu na ko ñëpp xam ne noonu ci biir loolu itam kon ñi ngi sant ndax mënees sa ñàkk sant ñi nga xam ne ñoo seq dëkk bi di ci liggéey Serigne Touba te lépp di sosi ci sëñ bi di sosi ci kàddu sëriñ bi di sosi ci liggéeyu sëriñ bi ñoo ñëpp ñu ay jàmbaar yu wér koo xam ne kenn ku ci ne la nga xam ne yaa ngi koy def bala ñoo xamoon njariñ bi tey nga xëy bàyyi kon la ci jiitu rek mooy maire bi nga xam ne mooy maire dëkk bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci dëkk bi ndax foofu itam am na tuuti du ci mat a leeral ndax nit ñi itam waxtu dañu ngi jàmbat bi dal ci seen kaw waaye nag nit ñi it dañoo fayut comme yërmande siñ bi dafa am ba nit ñi fayut nag moo tax ñoom tam liñ mën def lañ mën a def ndax Touba ginnaaw Ndakaar moo cëpp boo demoon Ndakaar tey seen budget dem na ci ñeent fukki milliards Touba nu am ñetti milliards kon daa ndaka meeram Ndakaar ban Touba waru bode man Thiès Touba mën na ko xaw a ñàkk budget maire tu maire Thiès mo bu Touba lo tam kon dafa ma taxam ndax ne serigne bi gi nga xam ne bi dafa bayyi ni sen rek ba seddi len ci moo tax ñoom itam lañu war mal mën ko ndax euh, li ñuy wax ba ngaa nga jambat la wax dang koy def ko di gërem it day daayira hisbu tarxiya ndax ñoom soldaari Sëriñ touba lañ ndax dañoo tontul suñ tubaab ndax tubaab yi dañoo jàppoon ne ci njàngum tubaab ci lañuy fexe ba rekki ngëmug taalibe Sëriñ Tuubaa indi ko soldaar yoo xam ne ña yaroo ca daari tarbiya wala ëpp nañ posté seen dund gépp ñu jeexal ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa amul guddi amul bëccëg boo leen bettoon xaaju ba demee ay lépp leen sëriñ bi wax amuñ ci xalaat amuñ ca jeexintal amuñ ca lu ñu lu ñu nattable wala lu ñu bëggoon wamaaxoo li mu waxoon Cheikh Mouhamadou Mountakha bi ci guddi ne ko wamaaxoo salabul ixtiyaar li xusni zannihi mooy ab taalibe kat dafa war a fexe ba lu ko sëriñ bi wax wóor ci andi tànn boppam ñoom yàlla defal na ko ndax dund naa ko ñoom ndax ba ma yore liggéey ba léegi mën na fukki at te loolu laa xam ñoom di gërëm itam daayira muqaddamatul xidma ñoom itam ñuy ay jàmbaar. di ñoo xam ne ñëpp xam nañ li doon ci yoon xam nañ li bokk ci biir yoon waaye dañoo jël lépp jaayante ko ngir Sëriñ Tuubaa wutewuñ dara soxlawuñ dara jël seen dund gépp di ay ndaw jaayante ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa di ko liggéey ci jumaa ji te laaj ñu ci dara kenn fayu leen ci dara ba jumaa ji ku xam ñaar fukki ci ginnaaw ak ni mu mel xam ne jàmbaar dëgg lañu di gërëm it daayiratu Safinatul Amaan mom da nak moy al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ñoom itam seen taxaway ndax li ñuy def ku ne xam na ne dañoo nekk ci li ñuy wax réewum laïcité te tuba di dëkk boo xam ne dëkkub diine la kon gendarmerie ak police ci ndigalu sëñ bi li ñuy tënku waaye am na loo xam ne sëñ ko tere ñoom ñoom nag ñoo wutu sëriñ bi ci loolu lépp loo xam ne sëriñ Touba bind na ko ci mën la foofu sëñ tere ko wala lépp loo xam ne wax na ne bëgg mu am ci dëkk bi guddeeg bëccëg ñoom itam lañ ca man ñu ngi ciy góorgóorlu guddeeg bëccëg di ko sàmm ba dëkk bi tey di waxtu wu xarkanam xar kanam bi duuru la xar lislaam ku fi dikkee xam ne dëkkub jullit la di gërëm it day rawdu rayaxiin ñoom itam ci wàllu xam-xam ñi ngi liggéey liggéey bu rafet liggéey bu am solo boo xam ne màggalu Tuubaa gi diiru ñaar fukki at yi leeral nañ ci nit ñi bañ gën a xam Serigne Touba ak ak njàng leen gën a xamit mbindu Serigne Touba di ci taarifi téere di ci bind di ci def ay waxtaan yoo xam ne mu ngi jariñ nit ñi waxtu ne ñoom itam ñu ngi leen sant di leen gërëm ndax ñoom itam dañoo jàng ba am ay diplôme yu kawe jaayante ngir Serigne Touba di gërëm itam waa Touba ci kanam ñoom yàggut ñaari at ak waaye wax naa leen jàmbaar dëgg ngeen ndax daayira bu ëpp at dajal lu ma ñett téeméeri million loola leneen ko may mooy ña ko jiite ñëpp nit ñi xam nañu borom posté xam na ni itam de sëriñ bi daa wax rek di di leen laaj luñ mënta di ko def fuñ xam dafa mel loolu bokk na ci li leen may loolu. di gërëm itam waa xuddaamul xadim ñoom itam seen posté ak seenu jaayante Sëriñ Tuubaa ndax lépp luñ dégg ñu wax ko te méngoowut ak lu ñu war a wax yoon wi duñ ca tàggu ndax seex Cheikh Saliou Mbacké kat dafa am lu mu jàngi doon dafa waxoon ne taalibe bu ñu tooñu sëriñam boo fayul tàggoo ñoom nag loolu ñu ngi ciy góorgóorlu bu dégg bëccëg di ci def luñ mën ak luñ luñ mën waa xidmatu xadim itam ñii leen di gërëm di gërëm itam waa daayira Matlabul Fawzayni ji nga xam ne ñoo seetal dëkk bi jàmbaar lañu waxtoo ne ñu ngi ci guddeeg bëccëg ak daayira Matlabul Fawzayni bi nga xam ne hôpital boo xam ne ay pir ko tabax ñoom ñoo ko jëkkati ci Sénégal def ko addee Sëriñ Tuubaa ñàkk ci milliard di gërëm itam waa Maa-u Rahma Maa-u Rahmati ñoom jàmbaar lañ lool ñoom la sëriñ bi dénk ndox mi ñu di ci góorgóorlu di ci di ci def ci te di ci bés def def posture di gërëm waa rabita bi nga xam ne ñoo yor njàngale bi kon ñoom itam ñu jàmbaare la ndax alxuraan moo tax Serigne Touba sanc Touba ñoom itam ñu ngi koy sàmm di ci def yitte di ko ànd ak Serigne bi waxtu ne kon yii yëpp mu wane na yoonu murit Serigne Touba defal na leen ñoom ay fondation yu dëgër yoo xam ne lépp loo xam ne bëgg nañ ko te am ca dogg am ca positif buñ ko defee rek suñ doon lay lay ci dimbali dinañ ci gën a soññ it ñu xam ne fu yoon wi àggit loolee leen fa àggale ndax. toole àllarba yi moo jur daayira yi ndax toole àllarba dafa dajale lu bari ndax co cosaan ni mu daa demee tund wu ne ña fa dëkk dañuy seet ki nga xam ne fukki kilo gerte la mën a am ak ki nga xam ne dooleem la ak ki nga xam ne waxtum la ñépp daje fa di di di di di di di bay tool bi xam xàmmewuñ ci ko dëkk fenn wala ko bokk ci xeet kon loolu bokk na ci liggéey yi nga xam ne Serigne Touba liggéey na ko ndax tubaa dafa jur ay tubaa yu bari bari toore àllarba yooyu nag moo jur daayira yi ndax Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko njëkk a sos tudde woon ko diwaanu Mouride te booba moom ci wax moo ko jiite te rakkam yëpp cere lañ bokkoon suñ Modou Obale ca la bokkoon suñ Modou Mamoun ca bokkon bokkoon suñ Modou Farma ca bokkoon suñ Modou Xaban ca bokkoon mboolem seex su mag si sëñ Mourou Moustapha ñëpp ca biir daayira boo la jox mu tuddoon diwaanu Mouride kon nag loolu ñu ngi ci soññ nit ñi ñu xam ne lu doomu sëñ Tuubaa bokkoon sos ko loolu jumbul kenn te it laa yastawil qaa'iduuna minal mu'miniina ghayra ulii darari wal mujaahiduuna fii sabiilillaahi bi amwaalihim wa anfusihim ka toog këram denc xaalisam ak alalam mënta yem kat ki jaayante jël alalam ak waxtoom def ko ci Sëñ Tuubaa loolu suñu borom la ko wax ci alxuraan kon dëkk yooyu nga xam ne Serigne Touba sanc na ko dafa jër ndax Touba departement bépp ak lu ko lu lu lu ci tegal lu bari sax fu ci ne dëkk bu ci ne Serigne Touba joxe ndigal borom mu sanc ko na mu ko na mu ko na mu ko daa digle ne Cheikh Mouhamadou Moustapha dafa waxoon ne bi mu leen di sanc la dafa leen waxoon ne bu dëkk bu ngeen ci sanc da ngeen wut fóore ak koo xam ne ku dégg ku jàng xam-xam ku jàng alxuraan wut fa buude wut fa tëgg wut fa lawbe wut fa ndaw lu jub mën a yor bitig ba nga xam ne képp ku nekk ci bitig ci dëkk ba doo wuti fenn lenn di ko soxla ndax li ñuy tuddee alxijaru te mooy immigration tey te noonu di ko ma tuddee fu lislaam àgg moo moo ko fa àggale ndax Jaafar ibnu Abdul Muttalib ca Éthiopie ñëpp xam na ne bokk na ci tasaar lislaam Muaaz ibnu Jabal itam ku ne xam na ne hijra boobu bokk na ci li tax lislaam yaatu fii ci Afrique itam eh, li fi indi lislaam mooy ndax gàddaay yett ka tax di gàddaay mooy gàddaay ngir rawale sa diine mooy inna ardi waasi'atun fa iyyaaya fa'budun ak ki nga xam ne day gàddaay ngir rawale xam-xamam faloola nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqqahu fi din ak ci gàddaay ngir wuur si lu mu tëdd loolu mooy huwa allazi ja'ala lakum al-arda zalulan famshu fi manakibiha loolu nag mooy jur dëkk yi am tey ci yoon wuure dinaa ci indi ñaari seere ndax benn bi ki ko seere ab jullit mooy Serigne Malick nett mooy li ma nett leen ci Cheikh Mawlid mooy bi mu sënc Taïf ci la ko ko Cheikh Amadou Moussa wax ne ko sëriñ bi kat mooy ñu digal ma Cheikh Amadou Fall dina dëkk bu ñuy sàncate nañ ko sànci nii te gis ngeen tey Taïf am àgg am ci beneen boo xam ne ka ko seere du ab jurit mooy Paul Marty dafa bind ci Daaru Bayre Daaru Bayre maam Cheikh bi moo ko sàncoon mu wax ne waris na leen ak kañ te tagg leen ndax dëkk la boo xam ne soriwul Cees waaye mu wax ne ko cheikh ba sanc ak dëkk ba fu mu àgg ak la fa daje wax ne indi tabax def na fa jàkk indi na fa kuy jàngal alxuraan am indi na fa kuy jangal xam xam-xam mu ne ku toll ci juróom-benn at ba keroog nga yow fukki at ak juróom nee na sa yitte jëpp mooy jàng boo ko weesoo nag ñaan daan la tàggat ci liggéey ak ak ak ak ak ak nongo liggéey mu ne def na fa nag benn tool bu mag boo xam ne lépp luy ñor ci réew mi def na ko mu a yemu ci it fexe na ba mboolem lu nit di soxla ci am njaay ci wàllu commerce fexe na ba am ci dëkk ba mujj na saxaar gi nga xam ne daa jaar foofu jëm dara saxaar gi daa gi dem dara ak gi jëm njaarim mooy jëm Tamba léegi nit ñi ci boppam ñoo mujj ñaan ne dañoo bëgg ñu fexe ba defal leen fa alt boo xam dafay wàcce ngir mboolem li ñu soxla am na foofu kon loolu itam mu bokk ci xarbaax yi fi ñu ñu bindaat itam ci dëkk bu ñuy wax Tuubaa nga xam ne Sëñ Gaawaan moo ko sanc ñu wax Sëñ Gaawaan nam sanc dëkk ba ak fam ko fekk ak lam fa def bokk na ci la ci gën a kiimaane ndax wax ji dafa gudd moo la ci gën a kiimaane nga xam ne Sëñ Gaawaan def na ko fa mooy bitig yi nga xam ne def na ko fa ba lu nit soxlaate doo dem Ndakaar wala fenn waaye bitig yooyu da koy am mu ne li ñu tuddee marché yi usbuuc yi nga xam ne mooy marché yi ñuy def ngir ay bis nee na moo ko fa moo ko fa taxawal nee na te yëngu ci nee na saa suñu accès ci bis bi buñ jaayee ba ngoon ñi jëralut ñëpp day dajale seen marchandise jënd ko ngir soññ ko ñooñu kon ñoom mboolem li ñu doon def defuñ ko ngir àdduna waaye dañ ko doon def ci wabtaxi fi ma aataaka allahu daara laaxirata wala tansa nasibaka min dunya kon xam naa ne ci dëkk bi daal mayes na ci yamale foofu wax ji ndax moom wax ji boo ko toppee du jeex te desaan na waxtaan mu mujj mooy li jëm ci màgg bi. liggéey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 moo tax ñu war a àggaliwaat la ci des waaye la lañ fa def ñëpp seen nañ ko ndax kër boo ko defee ñaari milliards te teewul lay joxe addiya xam nga loolu ak njàmbar féetewu ko fii ci kër Sëñ Tuubaa gi ci Daaru Marnaan itam Cheikh Sidi Mokhtar ñaari bâtiment yam fa defal boppam ëpp na ñaari milliards suñ Amadou Mokhtar moo ko doon taxawu ba ca des def na ca 500 millions ci loxol Cheikh Mouhamadou Mountakha la ko taxawu. yeneen liggéey ya ci des itam man nii la sëriñ bi santoon kenn ko ci ne ma dem ba ceew jël liggéey bi jox la ko ba ca jiitu mooy waa kër sëriñ Masamba mu teg ko ci loxo sëriñ Moustapha Masamba te ku ne xam ne sëriñ Moustapha xaal ba nga ko fekk waaye ñoom dañoo duuru seen maam ndax sëriñ Masamba moom sëriñ bi day day magam di waajuram di sëriñam pëstéefoo war a kenn ci ñoom ba ca mooy sëriñ Manoumbe di sëñ Ibra Xujja moom it gis ngeen jiite pëstéef la ba mu ca def ba ca def mooy sëriñ Sidi Jenn bu sëriñ Naar jën mooy gis ngeen liggéey ba mooy saal bi nga xam ne mën naa am cérémonie officielle bi ci jëmmi jamono xëy na du ñàkk ñu di ko fa defee ba ca dolli mooy eh, waa kër sëñ Aliou Diouf Lambaye ndax ñoom ko ne xam ne ci ñi sanc yoonu murid jàkka yi ñoom la ko sëñ bi teg seen loxo ñu di ko liggéey fii ci kër sëñ Tuubaa gi itam sëñ Modou Abdoulaye Fall Ndar moom moom la ma së man mii doomam euh, sëñ Modou ci boppam moom la ko sëñ bi sant man mii la yónni woon ma yóbbu palaam ba ci moom yàlla def na sax ca laa ko mu jigi sax ndax tegaatu ci ñaari weer tàmbali liggéey bi far yàlla doo suñu borom jële bakkanam ci biir liggéey kon moom itam laq na ngërëmu suñu Tuubaa ndax ab Baay Faal bu dee liggéey suñu Tuubaa ba bakkanam des ca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 Cheikh Ibrahima Fall daana wax ne Sëñ Tuubaa du santaane mukk lu dul am te duma sant mukki duma def loolu nag du fi jub